Situation paradoxale que la nôtre, un contexte global tellement favorable. presse bu Sénégal ñàkk na ab journaliste bu mag mbay Mbaye di mbay wuy ji na boromam ki fi nekkoon rédacteur en chef bu RTS rajo nekkoon itam journal bu Soleil Mbaye di mbay xam nañ ko mu nekk ab intellectuel bu mag. jiite woon na itam direction bu Walf FM foofee nga xam ne doon na fa amal ab émission buñu ñu tuddee le temps du monde si di mbay nekkoon na journaliste bu professionnel dëggu bu ñu sukkandikoo ci ñi ko xam. yàlla def tamit bi ma duggee CESTI 2016 ba 2019 mu nekkoon suma professeur donc professeur en éthique et déontologie maanaam ban taxawaay la journalisme war a am euh, ngir li nga xam ne mooy liggéeyam mu def ko mu amal njëriñ askan waaye tam mu doon liggéey boo xam ne dafay rafet te kenn du ko si am baaraamu boo xam ne ko si joxoñ loolu jàngale nañu si lu bari. moom mi nga xam ne nekkoon na formateur ci CESTI jaar na itam rajo Futurs média ñu ràññee ko fa ndax chronique yu am solo yi mu daan def. bind bu set bi xam nga bu ñu nee diw daa mën a gënd du bind bu rafet waaye contenu bind bi xarañte bi tubaab bi. ah tournure grammatical yi syntaxe bi morphosyntaxe bi loolu moom loolu moom mun bind de mun bind macha allah bu dee xam-xam bu neex baat. ancien porte parole bu crédit soppeeku nekk CORED liggéey na lu bëri ci presse bu Sénégal. doo bind waaye ay kàddu yu mu lay wax dina tax euh, nga nga amay leçon yu bari yooy jàngat ci li nga xam ne la koy nettali si loo xam ne moom dund na ko. fekkee na ko waaye itam loo xam ni ñi mi nekkandoo doon dund nañ ko te itam bi biñ ko dundee mu doonoon lu metti ci ñoom wala loo xam itam jafe na woon mu jox leen ay conseils yoo xam ni tax na ñu génn ci loolu ñu nekkoon ba def euh, liggéey bi ni nga xamee nag askan wi noonu lañ koy xaaree ci ñoom. nekkoon na nit ku baax am yitte ba noppi wàccee boppam ci kanamu ñi nga xam ne ñoom la daan la dañ daf ñu doon del temps benn 15 minutes benn 10 minutes waxtaan ak ñun parfois sax da ngay gis ne moom day wàccee boppam day déglu day déglu ah parfois sax day am débat boo xamante ne day am genre euh, interactivité boo xamante ne day am diggante moom ak ñun ñii te ñun wax dëgg ay doom lañu ndax Mbaye Sidi Mbaye moo ñu mag lu moo mag foofu daanaka suñu morom suñu morom Mbaye la. sii di mbay am na jaar-jaar bu am solo ci wàllum média fii ci Sénégal mu ngi bàyyi ci ginnaawam ab héritage bu am solo ci wàllum journalisme.